bon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu nuyu naa leen ku nekk sa tur ak sa sant euh, di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax a baax euh, di ñëw di indi benn démenti démenti boo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci ñi nga xam ni Sénégal gi yëpp sax jàppoon nañ ni bokkuñu Pastef parce que loolu lañu yàgg di wax muy euh, Babacar Mboup ak ñi mu àndal balaa may tàmbal démenti ba damay damay leen may rek ngeen déglu après ma ñëw si démenti bi incha allahu taala jërë dafa mel ni mbokki collectif bu ànd sàmm jikko yi di leen nuyu di ziyaar di ñaan yàlla kàddu yi fekk leen ci jàmm di wax ni xanaa bi ma tegee nuyoo bi ci loxo le coordinateur ou le coordonnateur ñaar yëpp la ñuy wax bi ma mujj tudd nag moo gën a nekk technique et administratif Euh, fi mu ne may wax ak yéen maa ngi jóge grand café bi nekk ci ron bu mag bi ci benn ron sax moo nekk cité kër góor gi rond point bu mag boobu xamee ni Auchan fa la nekk am na lu mel ni restaurant loo xamee ni grand café la bi ma jógee Sacré kër 2 wër cité kër góor gi gis naa que ni barrières yi moom dañ ni woon yëkkati nañ ko waaye yëkkatee guñ ko waaye ñi ngi en di ko yëkkati. loolu lan mooy fi ne ñi fi nekk muy ay beere rouge lañ leen daan wax wala yu ma xamul ñoom ñëpp ñu ngi defar seeni saag kon yaakaar naa ah li ma déggoon ku mel ni benn jëmm wax ko ni bu jógee ci kilifa gu tedd gu mel ni sëñ Muntaxa ba noppi tàngal bu boobaa kon dañuy mel ni dañ ñu ko demal nga tàngal waaye yaakaar naa kon kàddu ya moom lañ koy jàppe mooy fexeel ba jàmm dellu si ci réew mi kon jàpp leen ni fii may wax ak yéen nii ci heure bii nga xamee ni vingt et une heure quarante quatre la may janoog VDN bi nii ña ngay préparé seeni saag saag yu ñuul la yore ñoom ñëpp ku ca nekk mi ngi tegub saagam kon yaakaar naa ne xëy na dañoo bañoon a sàkki ci yoor yoor gi tey walla ci digg bëccëg gi que ñenn ñi dañoo xaw a rëy waxuma ñoom xëy na ne bàyyi leen ba guddi gi ngeen ànd ak guddi gi waaye kon jàpp leen ni ci li ma jàpp mooy bu subaa bu ñu xëyee moom jàppatuma ni ay barrière da ngeen ko seen cité kër góor jàpp ma ni itam beere rouge yi fi nekkoon bari fi lool jàppatuma ni da leen fi gis kon loolu mooy information bi ngeen xamee ni yéen waa ànd sàmm jikko yi yéen laa ko jëkk a jox te fii bi may dugg itam léegi fee ci bunt ba ñu ni ma foo jëm ñoom dafa ne leen grand café laa jëm foofa mooy barab bi nga xamee ni fa la ñuy jënde suñuy bon voilà loolu laa bëggoon ngeen déglu ko ba nuppi ma yëgal Sénégal gi yëpp nii primo sàmm jikko yi bis bu nekk ngeen feeñ waxoon yàgg nañ leen wax ni sàmm jikko yi Pastef la en miniature que nu mu tudd sax euh, Babacar Mbuub Pastef la tey feeñ na mais ñaareel bi mag muy fen kii di wax ni c'est faux et c'est archi faux que ni selon une information il nga xam ni mu ko amee lañ ko que ni barrière jugu fa FDS si tamit juguñu voilà donc loolu pour mu l'air mais li ñuy def nii yëpp xam ngeen pour lan la pour ndaw yi jóg daw wutali cité kër góor gi ne Ousmane Sonko libre ne wala Ousmane Sonko lii wala laa fitna gogou lañ ci wut mais lu ngeen tëgg ñun day fekk ne mën nañ ko map donc li ma bëgg wax sénégalais yëpp que c'est faux et c'est archi faux et au moment où je parle et li may wax ni nag c'est selon les informations yi ma jot que ni amul FDS bu quitté cité keur góor gi amul barrière amul barricade yu ñu lever que ni ñafa fa ñing fa continuer nek mission bala fa tegoon ñing fa continuer nek encore ci mission boobu donc tey jii nii ànd sàmm jikko yi ginaa bi ñu fenee Sénégal gi yëpp né Macky Sall dé légaliser góor jigéen leen des moy wane sen bopp waxon na leen ni fi ba kérok ñuy waxal buftu bi kenn ku nekk la ñu fenoon Sénégal dana feeñ kenn ku nekk foo faroon dina feeñ Sénégal mooy li ngeen dégg ci téléphone yeeg yu demee noonu nit ñi ngi wax téléphone yi moom lañ war a lañ war a wax jamono ji bu jamono bu jotee dañ ko wax mais juste lañ mën a wax daal ci loolu mooy c'est-à-dire que ni Ousmane Sonko moom la war a feeñ ci moom yëpp feeñ na te nees tuuti Sénégal dañ xam la moo waroon yóbbu kan assise wala chambre criminelle dem ba ginnaaw Guinée Bissau ba ngeen àndee yéen ñaar loolu war ngeen ko leeral Barthélémy ak Ousmane Sonko la ngeen fa échanger ci mail dëgg la am du dëgg en tout cas les sénégalais sauront bientôt sénégalais daa nga xam léegi lan moo tax Barthélémy Dias waxoon ni mënoon naa ci dem cour d'assises <laughs> loolu léegi mu leer léegi mu leer fi journaliste yu bëri fii voilà kan lañ financé lan ak kan lañ defloo ban mission ak kan lañ defloo nangam sangam donc tout cela ci loolu la jëm donc ñuy dénkaat nguur gi incha allah Thiès moom nañ bàyyi xel wax nañ ko sànq ci quartier yu bëri donc quartier bu mel ni ma Medina Fall

et pourtant amata ngeen toute la population donc loolu daal mooy li nga xam ni bëggoon naa ko leeral ci li may wax nag ci information yi ma jot pour mu leer information yi ma jot mais ku ci bëggulu leer rek mën a dimbali nit ñi mën na doxantu ba si kër góor gi filmer la fa nekk sénégalais yi mën a xam bu nekkee ni wax na dëgg ñu xam ne jóg nañu état bi dana joxe raison yi tax bu fekkee waxul dëgg état donc sénégalais dañ xam ne sàmm jikko yi moom na woon fa woon rek donc sant nañ leen bu baax comme information information sur le terrain donc nous continuons la vérification mais jusqu'au moment où je vous parle 21 23 h et quelques donc les FDS sont bien présents à la cité les barrières sont bien présentes à la cité Keur donc Inch'Allah, taala fa leen fa kenn xamul man xawma xamul du considération dama donc live mais nous voulons waxtaan pour la vérité parce que de bëri ay jiixi que mais liñ si bëggoon amaana les sénégalais yépp daw jëm Keur Gorgui que de donc loolu daal que je expliquer wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh